asalaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel murid point info ak bitim réew point net comme ni leen ko defalee ci taajaboon bi tam xarit bi ñu nekk édition 2018 bi ñuy wër mboolem acteurs yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum polytechnique yi fii ci département bu diggante Mbacke ak Touba comme ni ko sëñ Mbacke demee ci ñu ngi ak monsieur honorable ak moom ak laaj ay laaj ak tontu ci wàllum jëmmi ab Cheikh ab euh, Cheikh sa Ahad ci boppam waaye tamit ak ci li nga xam ne ci la yëngu muy wàllum politique kon dañ koy jox mu daal di nuyoo ñëpp euh, ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di nuyu mboolem ñu yëngu ci chute bi ñuy wax Mourides Info di nuyu mboolem ku koy seetaan ci biir réew ak bitim réew di nuyu sunu sëriñ suñu yaakaar tey ak ëllëg sëriñ Mountakha ñaan yàlla yàggal ko suñu kanam jaay xaadimul Moustapha euh, di leen sant gërëm leen ci taxawaay bi. waaw euh, honorable député ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la. naka ngay dundee tam xarit bi en tant que père de famille naka nga koy dundee ak njaboot gi ak ni mu nekkee diine ba pare am cosaan lu ci raxaale ci biir. damay wax ne chaque jour dañoo war di sant yàlla bu nu yàlla mayee fekke ren fekke waat déwén ci lépp ci jàmm ak salaam ndax yàlla bi mu bind dafa bind nit ci ay programme ñi dañuy raam. ñii dañuy dox ñii dañuy yor bekk ñii sax dañuy xalongu bu ñuy dox mu doon mbir mu doy waar moo xam ne mu yéeme la yooyu yëpp boo ko boolee ku yàlla dimbale ñëw nag indiwaat beneen mbir muy am ñoo xam ne dañuy dem li ñuy def wax mooy am dañoo am am ñoo xam ne dañoo ñàkk yooyu yëpp ay mbir la yu am solo ku yàlla dimbale nag ci diggante bi nga xamee ne mooy ren ba déwén ñaat nit ñoo ci faatu yoo xam ñaat nit ñoo ci am jafe-jafe yoo xam ku yàlla dimbale ren ba déwén ñaati nit ñoo dolleeku ci ñu doon soox ñaati nit ñoo dolleeku ci ñu doon raam ñaati nit it ñoo dolleeku ci ñu doon xalangu wala ñuy tëdd te duñ jóg yàlla dimbale la jox lay tànk jox lay loxo jox lay bët te sooxoo raamoo ren ba déwén te tëddoo war nga sant yàlla sant suñu borom bu baax a baax sant Cheikh Ahmad Bamba mi nga xam ne moo la dëkkal ci dëkkam bu tedd moo tax ñun bu ñu ñëwee fii ci Touba fi la ñu dëkk fi la ñuy suul fi lañ am suñu lépp parce que suñuy waajur sax fi lañ dëkk moo tax suuru tam bu jotee. li ñu njëkk wam mooy dañu dem tamxarit xarita dundoo ak woy néew doole yi fii tamxarit euh, fii ci kër gi cere lañuy ñuy reere kenn du def lu dul cere bu noppee damay këpp man maay ubbi këpp gi li ñuy wax jël bool yi këpp man maa koy def dellu ci cosaan bi tuuti parce que li ma ci jublu mooy kër gi maa fi gën a doon gone sama sëriñ mi ngi fi sëriñ du Seck ñaan yàlla yàggu suñu kanam loolu nag moo tax man mi nga xam ne maa ci gën a doon gone maa di jóg dem def yi cosaan bi ànd ko ak jigéen ñi léegi la jigéen ñi jóge fii ci man di ñuy waxtaan su ma paree dinaa jóg dugg ci néeg euh, sama soxna mag yeeg yeneen tooñ leen taajaboon leen man damay taajaboon passé wu ma ko euh, li tax ma di ko def mooy cosaan dafa am solo parce que bu ñu defee cosaan rek euh, delloo ci cosaan. problème du am parce que cosaan mi ngi mel na ñu ne ki géy la sant ki jaw ki sekk loolu cosaan la loolu mooy waral ñun ñooñu duñu xeex duñu xuloo parce que bu problème amee ah mais ndek yow géy nga sant pare naa ci yow ndek sekk nga sant pare naa ci ndek jaw nga sant pare naa ci loolu lu am solo la te loolu dañ ko war a delloo si ci réew mi. Ah, mel ne. mel ko waxee. mel waaw def naa ko seet naa ay quartier yoo xam ne quartier la yu sori biir jumaa ji sori corniche bi nga xam ne damay daw ay kilomètres door a dem foofu ak fi ma dëkk ma dem seeti leen yenn ak ñoom jël ay nag rey ci yenn quartier yu bokkul. ñu seddoo ku ci ne am ci dara ci nag yooyu man ci laay am li may toggee sama kër maanaam nañuy séddale dañ may sedd saam maanaam bu ñu saam teg saam yi dañ may sédd ma teg benn saam sédd ma ko man it ma indi sama kër comme tey bu ma reyee juróomi nag fu ci ne buñ ma defalee saam danaa mën a am sama sëfoor am ci te jafe-jafe du am. bu ko dee loolu laay indi jox sama waa kër ñu togg loolu li ma ci jublu mënoon na maa reye fii nag bi sedd leen mais dama leen di bàyyi ñoom ñu rey ko sedd ma ñu xam ne euh, li ñu am li ma am yàlla moo ma ko jox te ñoom ci lañ bokk as gor bu la yàlla dimbalee ba defal yenn yi wóoroo dem rek reere sa cere wala sa reere sa yeneen daal fekk am na ku réerut te santoo yàlla ba jàppale ko loolu as du ko def moo tax man duma ko def. mel na ni jamono ji ñu toll. actualité dinaa lay wax loo xam ne mosuma ko wax yéen am sens pour ma wax ko ñi ngi def parrainage ci suñu parti mais nañu def attention ñun sunu parti ak beneen parti mais sunu parti sañ naa cee wax. ñun vingt six mille lañu sas mais gëm nañ ne mën nañoo am cinquante mille ndax responsable bu ne bu ci defee dara mën na nekk wala soixante mille waaye li may bàyyiloo xel nit ñi nañu arrêté ay nit yuy génn naan ku ci jëkk a génn rek ne am naa cinq mille six mille day fen oui ku ko wax rek da fen ku ko wax rek da ngay fen parce que am naa ku may waxal de mu ne ma am na ku am treize mille. déedéet am na ko am 12000 ma ne ko ah bon mu ne diw de am na 12000 ma ne ko arrêté leen yi ngeen di def lii mooy nax président Macky Sall ñun élection législative li ñu daj li ñu kër kër yi 13000 voix la am benn nit génn 13000 voix est-ce que dëgg la loolu ay caaxaan la ñun ñàpp ñëw kër kër yi ku ne dugal ci sa taf taf ku ne def ku ne def ñu xëy suba ngoon guddi bëccëg ñu am 13000 voix. doonte élection yi dafa yàqu am na leneen lu des te dikkul te xamuñu ñaata la mais lu tax man kon Abdou Lahad ma xëy suba ne am naa treize mille voix parce que gis naa ne erreur boobu daf ñu daloon ci mbind ma mbind ma man rek amoon naa quatre-vingt mille ci misaal mais booba ñu li ñu fàtte mooy nit ñi dañoo soxla affaire bi di ñëw ci ñu di bind si. mais effectivement am nañ ci droit parce que am soxla nañ mbind mi te amuñu mënuñoo bindu xëy na rang yi metti na te buñ dajee fenn politiciens yi danañ jël ay commission indi leen ñu dem bindu ji. gis nañ bi nag problème bi ci am ma tax may wax mooy xam naa double rond dana ci am ay dit yoo xam ne dañuy bind xale yi parce dafa am ñoo xam ne li ma dégg erreur la parrainage bi képp ku ci jéem a génne xaalis. def nga erreur te jàppale woo président Macky Sall. ci loolu laa bëggoon a ñëw ak yow gis nañ fii ci Touba moom yéen ñi nga xam ne yéen a féet au pouvoir la ñuy génn ñu wax achat de conscience loolu ndax man nga ñu ko dindi tuuma la wala. non euh, man du mën a feex gis nga opposition bi ñoom ñoo génne xaalis en réalité te am na luñ ci xam lu bari waaye mais ñun lañ koy jiiñ mais liñ ci gisagun ci xaalis mooy maire Touba. daje ak i chef du euh, village am jàppale leen mais am na ci droit parce que sedd de bu daje ñoom jëgati ay kii dimbali leen mais loolu suñu yoon na wute loolu du parti bi maire moo ko def maire ku bëgg a am ci loolu xam-xam demal nga laaj ko maire mais pourquoi pas ñu ne parti bee ko def beneen bi mooy li ma la wax léegi ñiy wër di collect soo leen jaarale wul yoon problème day am man sama collecte dama jël nit koo xam ne mooy sama coordonnateur Xaadim si la. jël ay nit yoo xam ne ñooy dem di collecte collecte bi dañu dem ci lee bi toog ñu ñëw toog ñu bind leen ñu bind ñu signé ñu toog yóbbu fa ñuy bind jàmm na ñooyu ñu bàyyiwaat leen seen dànt parce que dama leen internet bu leen yor dàntite parce que li ma du d'accord mooy bu yor dànt ci loxo tam amee rek ñu ñëw di yor dànt di bind dafay am lu muy daal di signifier mooy mën na maa jël dàntite koo xam ne bindu woon na ba pare moo tax euh, <laughs> parti Sénégal yëpp fii la ñu amee problème ah. fii la ñu amee problème parce que lu tax ñuy am problème mooy nit ñëpp ñu ngi jëm si Touba daw di bind ji parce que ku ci ne da jàpp ne li la war a mottali Touba nga ko war a amee bu ñu ñëwee Touba bindu fi ji nit ñi surtout jigéen ñi xamuñu lu xew ak yenn mag yi xamuñu lu xew dangay ñëw rek abal ma salante mu àll nga bind signé dem sa yoon. gis naa koo xam ne sax dégg naa daa dajale ay gars yi banques yi wax ak ñoom ay affaire financement ku ñëw mu ne la boo bëggee am ci financement bi da ngay bindu doo ba da ngay bindu nga bindu si mais bu subaa bu keneen bindoo man dama wax gars yi ne leen nañ waxante dëgg man li ma soxla ay signature ne damaa soxla 2000 personnes yu ma parrainé wala 3000 man du ma passé 2000 wala 3000 parce que bu ma ko passé rek gëm naa ne rax na rax na te 2000 personnes 3000 sax ëpp na. en réalité il faut ñuy waxante dëgg parce que yaay caaxaan la 2000 personnes 3000 personnes ñu ne la ku jóg ne am naa 2000 ku jóg ne am naa 3000 ku jóg ne am naa kam ñeen nag daal di xeeb xeeb loolu daal ne man 50 mille 70 000 80 000 du dëgg man maa ko wax du dëgg. gis nañ ni maanaam mel na ne fii ci Touba maanaam lu xam ne am na luy ñagas seen diggante ci côté leader yi laa bëgg a wax na te fan yii pass gis nañ ko mel ne Mbacke Bara Dolly muy woote benn te gis am na ñu fa ñëw na ne ñi leen ñu organisé te est fii Touba ku la jéguma fii parce que Modou Mbàkke barki démb man bi nga xamee ni parrainage bi ñëw na man mii lañ jox fii ci télévision laa nekk Mimi Touré moo ko jox ñu woote ndaje ñun ñépp ku ne am nga ca dégg naa sax ñu jóg naan ñoom lañ ko jox du dëgg. nañ ñu jox firnde ji mbërki démb bi ñuy gars yi ñëwee di def euh, di defaat formation mais pour pourtant man de maa leen ci man lañ jaaraat ak Cheikh du ñoom ak ñeneen ba ci du ñoom ñoom parce que su groupe la part bi yëpp la mooy ñiy politique te nekk ci dëkk bi mais waxuñu ñi nga xam ne business la ñu def pas ñagas ñagas il faut ñu arrêter yenn yi parce que politique bokkut ak business business am na ñoo xam ne business moo leen dugal ci politique. nekk Macky Sall nga jàpp man euh, waxuma ñu mu nekk Macky Sall dama ne am na ñoo xam ne dañuy politique business ma leen ci dugal business man man wax dëgg yàlla Abdou Lahad awma lu may wax ci moom mais li ma gëm mooy ñii politique dynamique bi ñu yëkkati ñi ngi ci ñi nga xam ne dañu politique gëm naa ne ñi ngi ci li ci des nag mooy ku ci dem ci <laughs> ku jëm dem woo ministre intérieur wala nga woo keneen ne ko ay fiis laa bëgg mu jox la cinq paquets yi cinquante cinq cent cinquante nga xam ne ay vingt sept mille et quelque la yor ku ko yor seetal foo jëm mais bul jëm ci saa Sadaga man mënu ma ko si mënu ma ko li ma am mooy li ma man mooy li sédd nañ ko parti bi ma ñëw cëru ca dem wuti ci ay nit jàpp sama bopp du ma fi nekk di ndax mag Sall duma ma fi nekk wax lu ma munut su ma amee nee naa gaañu mille huit cent lañ ma saas dimbale leen ma kat. ngeen góorgóorlu ñu dem ci ñu finance parce que man finance na 230 millions. 230 millions buñ démé ci ñoñu amna naa yaakaar ne ñooñu nañ ma génneel sama parrainage té duñu jaxaso jaxasoo ñi nga xam ne yóbbul ndox mën nañu génne sama parrainage té duma jaxaso jaxasoo ñi nga xam ne yóbbul ay salaire mën nañu génne sama parrainage té duma jaxaso jaxasoo ñoñu nañ ma fa démal mais buñ ma démal ci ñi nga defuma fa dara parce que ñi nga defuma fa dara dama dem ñu dig si ma leen de ne danaa indi nangam keneen dig lu ëpp li ma wax kooku mu ñëwee ko je bëgg xam ne buñ may parrainel man la ñuy parce que man vote bee intéressé ci parrainage te Touba problème beneen mooy ay nit a nekk yoo xam ne wër di wax ne du dëgg ay politiciens yoo xam di wax du dëgg politique wax dëgg politique bo xam da nga jog diw di xass ay wax lo xam ne ay sos la man duma ko def du ma sosal kenn te lu ma gëmul duma ci sori mais am na fi ñoo xam dañuy war di sos président lii président la président leneen mësuma dégg ma jël politique bi di ko politique ci côté sëñ Touba dama ciy moytu ndax sëñ Touba du ay ay ay neef yi ñu naan ay politique sëñ Touba man loolu gëwuma ko sëñ Touba Mbàkke suñu symbole la symbole ku ko am respecté ko teg ko nee bu ko laal di ko dugal ci loo xam ne ku nee nga ca. parce que affaire politique ku ne nga ci. dégg naa fii ci benn de mu ñu ne am na ku ñu jiital koo xam ne Macky Sall la ko tànn loolu amul ku muy man muy keneen Macky Sall tànnu kenn kenn la tànnu wax dëgg yàlla ay jàmbaar ñoo fi nekk di ko jàppale man duma ci génne kenn ñëpp ay jàmbaar lañ man nag bu dee mën a soxla ma pour jiite kuy jàppale Macky Sall rek mais sama xarit nga sama leader nga parce que man Macky Sall lay jàppale. nekuma ci yenen parce que man moo nek ci yoy sonal sama bop man président Macky Sall moko soxla gis ko suma ko bëggee jot jot ko lu may sama mag la sama xarit la lan lay xëccio man bu bu bu buñ demoon ba candidature am mo ñu ne benn nit la soxla pour ñu voter ko man lay doon man sama carte du moy ku dul Macky Sall du moy fu mu jëmul kon kuy jàppale président Macky Sall man ngay jàppale. leader yëpp ak Macky Sall lañ visé amul kenn bu jiite sa morom fii au niveau mais loolu parti bu ñu ko joree te amul te doxalaguñu ko. maanaam nga xam ne bànqaas yi fi nekk mu ngi mel ne tey yéen seen journal bi seen Mouride Info bi ko bi ngeen ko keree ki ko keree ki am xalaat bi keree ko bi mu ñëwee fii ak defu leen groupe rek xamu leen kenn lu mu yor fii ne loolu moo fi am. waxtaanaguñ ci président de joxee joxeegu ci ndigal benn coordinateur lañ fa ma sonal tàng na muy président Moustapha Cissé Lo maa ngi koy nuyu euh, moom lañ fi tànnoon depuis bi mu fi démissionné ak tey <coughs> kenn kenn remplacé gu ko. waaw maa ngi leen di sant gërëm leen.